waaw salaamaaleykum téléspectateur Ladoum TV salaamaaleykum axlu élevage salaamaaleykum monde entier comme li ñu leen ko waxee woon rek ñoo ngi fii ci Louga lu fi xew ñu ne waa GPRO ñoo organisé foire bu mucc ayib ñu tuddee ko foire de grands éleveurs ñu nekk ay éleveurs yu garaaw jël affaire bi nag liggéey ci liggéey bu am solo affaire yi am niveau niveau bu am doole ñoo ngi nii toog ak Moune Ndiaye président organisation bi nga xamante ni si tey lu xew fii moom la lu waral coow li yëpp réussite moom la ñu xool nag Moune Ndiaye organisation bi ak ñi mu àndal naka la jàppee organisation bi naka la ko géré Moune Ndiaye ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur Ladoum TV nga wax organisation bi naka nga ko. waaw asalaamaaleykum euh, les éleveurs asalaamaaleykum waa Sénégal. asalaamaaleykum waa Ladoum TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jox seen waay waaw di am kontaan lool si invitation bi si plateau bi bi ngeen defal jagleel ko waa GEPROC waa seen disponibilité waa vraiment seen yaatal élevage li ngeen bëgg si élevage moo leen waral ngi mu ngeen déplacé ñëw ba fii ngir jëmmal suñu foire bi lu de passage mun ñu ko romb te remercier leen ci waa di bu ñëw sa question rek waaw foire bi moom man la ñu wax ne c'est une première à Louga mi ngi soog am si Louga Louga malgré ne sunu mag ñi fi nekkoon nag yoroon nga encore association bi daan nañ def ay jéego vraiment jéego yooyu waral sax ñun ñi ñoo amoon a dem fit ba mën a taxawal lii waaw di wax ne organisation moom métti na méttiwul mais dafa fekk bu méttee lool sax dafa fekk ni ñi nga ko bokkal dañ laa seetaan mais vraiment ñu ñëpp àndandoo di nasandoo di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo ba lii mën a am waaw. tubaar fakkaala yéen a ko déggandoo loo gis rek am na ñu nekk ci ginnaawam njaay foo ko gis. leen ko waxee rek ku wax organisation xam ne organisation dafa metti boo xoolee yenn structure yu bëri bu ñu nee organisation ki féetewoo organisation bi bu événement bi commencé rek ñu bëri nañu roccee ko bàyyi ko ak événement bi mais ñu ñëw fii ci Louga ñu gis Ndiaye nekk ci organisation bi foo tourné gis ko mais toujours rek. am na ñu nekk si ginnaawam ñu ko ñi nga xam ne ñu ngi koy accompagner Ndiaye lan moola may loolu. waaw lu ñu may mooy mooy suñu bon mën nañu wax ni euh, benn esprit d'équipe la benn solidarité boo xam dafa am suñu biir ndax mbooloo moom bu fekkee dañoo ñëpp dañoo àndandoo di li ma lay wax si njëlbeen di xàccandoo di dóorandoo loo mënti jublu rek dana yomb ndax gars yi fii moom vraiment bari nañ Pastef lool te gouvernement bëgg sax organisation bi waaw mu jaralal lu ne. wax dëgg kii dañ ko mën naa la wax ni deux mois presque gars yi toogatuñu dem voyage sur voyage voyage sur voyage fu ma dem am na ñu ma accompagner musuma dem tout seul musuma génn Louga ci propos ci wàllu organisation euh, foire bi te ànduma ak nit kuma à tout moment y a des volontaires xam nga mu doon loo xam ne nii nag wax dëgg yàlla de passage maa ngi ci saluer de passage maa ngi ci saluer bon tout tout l'équipe maanaam Zprog waxuma membre du bureau yi mais équipe Zprog yëpp tous les membres wax dëgg yàlla ndax ba mu bañ jubloo si mbirum organisation bi amatul woon membre du membre biro xamatuñ membre bureau xamuñu membre simple ñëpp xal ñëpp a taxaw serrer la ceinture jàppale ma si ginnaaw nekk sama ginnaaw jàppale ma pour la réussite de la foire. waaw xanaa loolu moom mooy da ngeen di tëj gémmiñ ñi nga xam ne dañu waxoon ni ñii duñu dem dañuy sóob dañuy wax nii rek xanaa loolu moo moo waral yéen ñëpp ngeen jóg def mobilisation ak loolu bi ngeen ko déggee naka lan la leen def. waa dafa am wax yi xam ne nii man pour man soññee la man wax yu bëri du ma ko méttalul dama naan kii dafa maa soññi waaw pour wan ko ni ko li nga yaakaar am na lu jékki njort lay ñëw n'est-ce pas ndax lii bañ ko taxawalee bon am nañ suñu biir sax ñu xam ne sont des membres gëmuñu ñu woon. wóor na yàlla gëmuñu ñu mais ñu am volonté bi rek am bi rek di dugg ko génn dañu xam ne bon dara tawul doomu aadama borom li wolof naa borom karaw gu ñuul borom karaw gu ñuul dara tawu ko waaw jóg rek sabablu rek ñu ànd seeg sunu sunu borom jàpp lañ si ba lii mën a aboutir waaw. macha allah loolu am na solo ñu gis bu njëkk Louga defoon foire ñu doon def ay kirtinding léegi Louga ñëw def foire foire bu mucc ayib ay xale yor ko ñëw indi chapiteau. bi ngeen waxee gars yi ni chapiteau ngeen bëgg naka la ko gars yi jàngatee woon nan la ñu réagiré woon. waaw delloo nga ma démb nag <laughs> mooy sunu waar bi ñu a def boobu lu ko waraloon kirtine gi mooy euh, faar boobu dama dikk lu tax sax ñu jox ma organisation organisation si euh, comité d' organisation dafa président si faar boobu la jógee ndax boobu dafa fekkoon gars yi mujj bañ découragé. ma ñëw ne leen gars yi lu mu demee ni ñaan gars yi ñun kay est-ce que duñ boycotté bi man ko ëpp naa def si laa demee nag ma kenn commencé xëcc ay barrière di di rangale gaawantu dem jëli saret wuti dem wuti ay critique boobu instant boobu sax fekkoon nañ woo nañ waa Thiès dëkk waa saint ñëpp ñu ni seen i garde-fou disponible lu ñu xam nga ñu ni kon ma ni kon ay critique moo fi sës dañ ko dem wuti xam nga nañ foire rek si ba bañ jógee si foire boobu sa sans que ñuy dem élection au bureau lañ ma nommé président commission d' organisation. la nommé élection avant ñu def élection lañ la nommé président d' organisation. waaw avant ñuy dem élection lañ ma ko nommé bi ñu dem élection dëggal ko <laughs> waaw waaw non xam nga bëgg rek bëgg rek bañ lu xam di dem yow ñu yàgg a daje fu ne may gis lu fay xew si gox yooyu ma bëgg tamit sama sama dëkk am lu mel ne noonu lu luñ leen mën a respecté si élevage looloo waral fi mu toll xalaatutuma coono. xalaatuma ma guddi laa ne xalaatuma bëccëg laa ne lu ma bëgg daal mooy Louga fuñ ko limee si fu ñuy limee yeneen ndëkk si élevage danañ ko limee fu ñu limee foire danañ limee Louga loolu moo ñu may lii wax dëgg yàlla mu metti nag li nga ko waxee rek mais nag tey jii am nañ dëgg si kaw nit ñi ña doon weddi am nañ dëgg wax dëgg yàlla dem nañ ba am na mag mu xam ne nii woo na ma démb ni ma dëgg dëgg ndaw yi yéenay jàmbaar lii de yaakaaruñu woon ni dana mas a am si Louga dëgg lii moom sunu xol sedd na si guy mu doon motivation boo xam ne nii wax dëgg yàlla moo moo gën a milliard waaw. macha loolu am na solo ci jamono yooyu bi ngeen defee foire Kirti Nding organisation ba nga ko jëlee woon ba nga organiser woon ñaata box ñoo ci nekkoon par rapport ak bii. waaw boobu matu matu woon 80 box. waaw quatre-vingts box matti ko. mais bii est-ce que jaaxalu leen ci ñaata box ngeen toll est-ce que jaaxalu leen bi ngeen ñëwee loolu. waaw fii ñu si dem ba si ay sa presque cent quarante box mu doon mën naa wax ne mu doon double xam nga waaw yokk te en même temps tamit gars yi dañoo liggéey ndax tamit bon am na loo xam ne nii gars yi bu doon ñëw visite à Louga fekk fi tey benn affaire boo xam ne demul fenn duñ sawar a ñëw si foire bi mais dafa fekk ni gars yi dañ doon déplacé wu di gis ni ni waa Louga ngi si yoon vraiment ñoo ngi dem di jënd ay maali cher di teg di jënd famille cher di teg di di seet di seet nu ñuy composé seen xar yi ndax de surtout ça da si am solo ñoo gis ne euh, boo xoolee gis nga ni lu bari am na fi par exemple mën nañu wax ni Louga dem na euh, si diggante bi dem Dakar jël champion Saladam n'est-ce pas espoir xam nga di ay yeneen ak yeneen ñoo xam ne nii lu Louga def na ko ci élevage kon nag mu xam ne nii ba doon loo xam ne nii wax dëgg yàlla loolu dafa doy loo xam ne dara war a mën tuve ñëpp ñu mën a ñemee ñëw fii jënd fi bokk di exposé bay nekk membre de l'association waaw. Ndiaye lan ngay wax waa GEPRO ak li des ci foire. waaw waa GEPRO di leen wax rek ñu gën a góorgóorlu rek te xam ne lii du dara ñu xam ne defuñu dara lii ci kaw lañu war a la ñu war a séntuwaat te xam ne lii. buñ gé buñ dégg benn gërëm wala benn sant ba naagu defatuñu dara dañuy soog a door rek te ñoo bëgg a dem sa kaw waaw. ah. mag ñi nee nañu ku naagu daagu ku daagu. xaw ma ñu romb la dem sa yoon waa kay vraiment wax nga dëgg waaw loolu daal lay lancé appel boobu daal ñu gën a serrer la ceinture booloo nekk benn di dóoro di nasandoo di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo nekk benn bloc rek. bañ a bañ xajal lenn lu xam ne day yàq daal buñ ko defee daal li tubaab daal lenn li tubaab di wax daal danañ obtenir dana ñu obtiendrons gain de cause à cela waaw. merci beaucoup. kontaan nañu bu baax a baax a baax. maa ngi leen sant nag di leen remercier yéen waa Ladoum TV te yaakaar naa ne ndaj jaata toogaay bii mus du tey laa ko mas a am si yéen waaw yàgg nañu fu fuñ mas a tasee si àddina jox ngeen ni suñ cër wax dëgg yàlla lu lool lu ñu rafetlu te ñu fonk leen lool nag vraiment. comme lu ma leen daan ñaanal rek yàlla dem ba laa nekk télévision yi mag a mag a mag a mag a mag wax dëgg yàlla ndax yéen sangub élevage ngeen mun leen fay ñàkk quoi maa ngi sant di leen gërëm waaw wasalaam. aw jërëjëf Ndiaye kooku mooy Mour Ndiaye mi nga xamante ni si moo nekk président organisation GEPRO dégg ngeen kàddu yi am na solo tubaar fakàlla muy organisation mu yor ko nag yor bu mucc ayib ànd ceeg ay naataangoom di si liggéey liggéey bu am solo ba fi mu nekk nii ñu am réussite totale. ñi nga xamante ni si dañoo jóge woon ci ay kirtinding tey ñu ñëw ci ay chapiteaux jóge woon ci ay box yi nga xamante ni si 80 box la woon tey ñi ngi ci presque 140 et quelques box kon xam nga ni ñoom tubaar fakal la liggéey nañu ay xale yu mucc ayib di leen ñaanal rek réussite di leen ñaanal yeneen feem yeneen édition yi di ñëw tubaar fakal la ñu gën a yokkaat seen loxo xam ne nag ah waa Dakar waa Louga ngi ñëw de waa Thiès gis ngeen li ngeen def événement bu rëy Louga ñëw nag def événement bu rëy encore kon ñeneen ñi Louga sas na leen comme ni waa Thiès sase woon waa Louga jërë ngeen jëf merci.